laal maman Ndeye Yacine depuis Thiaroye nuyu nañ ko ak Ndeye Binta Cissé maam Nalla Sila ñoom Moulay ñoom Mohamed ñoom Bachir waa Escaf euh, communication yëpp de la part de Fatou Anne Mar nekk ca Escaf sama xarit la nuyu nañ tamit Malick Sow nekk ca dëkk bu ñu naan Californie ak Ñaling euh, Ñaling euh, Camara nekk ca États-Unis ñoom Noa Camara ña nga ca États-Unis waa Atlanta daal maa leen defal mention spéciale di leen xam ne képp koo xam ne da ko nar a man te jaarul na loo musa jox mati rek euh, nang ma woo ne ma mus naa ko jox lii pour mu jox la ndax li ci bëri mati bu ma ko gisee tabaski ak korité la war a ñu tase ci studio bi waaye nag du xaalis bu muy teg sama loxo kon mbokk yi nii def nag moom mooy dem seeti Ablaye Wade moom ci boppam wax ñu lan moo tax mu teggi marché boobu di ci am mbégte contenté ba tey dina xamal ne ar manti mooy mayonnaise bi nga xam ne moo ànd ak corne bœuf armenti am na bu ginaar am na bu yàpp strong bi dafa neex boo lekkee lépp teg ko ci nag maa maa maam mbégte bi ngay àndal rawatina savon bi nga xam ne boo lekkee ba pare moom ngay sangoon daal di toog jàpp sa ñambur wari di la may billet avion ngay dem Makka waaye tamit partenaire yi kenn ku nekk mu ngaa gagné lu toll ci 15 millions kon daal wax dëgg yàlla sponsor yi macha allah ni ñuy góor gi foofu ca kër ga ah. nit du foqale waaye yàlla baax na Mati Dieng moom baax Right. Right. Right. di leen di sant eh bien di leen gërëm ku nekk sa tur ak sa sant am na loo xam ne bu ma kilifa gi ñaane sëñ Sidi Maktar yal na yàlla yokku fanam bàyyi ko mu uuf njaboot ji jërëjëf moo ma ñaan et eh yoon yónnee délégation ma nangu waaye moom xam na ne xel ne mën naa dajale ay doomu aadama yu fees kolobaan waaw ndax kolobaan parti démocratique sénégalais première CGM mu ngi ko amee à Colobane Colobane dama fa xam dama ko maîtriser yàgg nañu fa jàpp xam naa ruq-ruqaat yi xam naa stratégie ni ngay def ba kenn nit ñi Macky na xam ne li ko may chance mooy kilifa yi may woo di ma ñaan ñoo may woo di ma ñaan buñ ma ñaanuloon et eh bien damay attaqué dans la plus grande discrétion ndax man mun naa dox marché te du ma yëngal dara mën naa ko bu ma neexoon tey Sénégal tey ma xar ko ñaar ñi ànd ak wadd ànd ak wadd ñi ànd ak moom ànd moom ndax man maa fi waxoon abla Abdou Diouf ne ko gouvernement mun naa créer sama gouvernement parallèle mun naa ko waaye dama dul yee fitna moom nag bu ma bàyyi di profiter et eh bien li ma sëriñ di ñaan may bàyyi mu yaakaar na rek bu marché amatee rek bu ma bindee ñun lànk ko bu ma ñaane ma bàyyi non non wax naa ak sëriñ si nee la nag jot na pour ma war a sama bopp ndax moom du fi ñàpp ñëpp na rab xam nga fan la jëm xam ngeen ci kan ci man la mu lay lay jëm si waaw ana Karim ana Karim ana Karim ana euh, ana Samuel Sarr ah ana Adja Aïda bëri ñoo ngi ci kaso bi léegi bu jàppee ba pare bu gëstoo daj ci man nu muy def fu may jëmee ki doon yërëm dina bàyyi sama doom da may yóbbu ci kaso te man kaso sama kër la xam naa ko du ragal du ma tapet eh bien te dinaa préparer riposte boo xam ne moom dina xam ne du ma tapet ndax man ni nga ko waxee eh bien ndaanan day fekk nga dëkk ci dëkk boo xam ne eh bien ay ndaanan man sama maam dafa xare ndax wadd njàkk fara wadd njàkk yokku ba sa songam xeer du ku nekk lañ koy wax nga ne tekk yoppi ma nga Coro Sarr diggu Coro Sarr maanaam Coro Sarr Nate Wade Ndiak Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak Moussa Coro Sarr ba fa Coro Sarr. kon Abdoulaye Wade mooy góor gu dëgër ba mu jàppee ba tey bawul. Abdoulaye Wade góor gu dëgër ba mu jàppee ba tey bawul. Abdoulaye Wade góor gu dëgër ba mu jàppee ba tey bawul. waaw loolu la université nag. xale yi li ñu war a jox mooy jox leen bourse jox leen ñuy lekk ci corned-beef yu neex yi nga xam ne dafa baax ci mag baax ci xale baax ci baax ci xale moom lii la waroon def jox xale yi corned-beef jox xale yi ñuy lekk corned-beef ndax corned-beef dafa baax ci amul jot corned-beef mooy ku amul jot su ko mooy lekk baax yi duma président buy taasu ak fecc ba boo leen jógee rek naan siiku ndiig ndiig na war a ndiigu sama fulla laa wax sama baare Macky Sall lekk yu neex yi te yomb moom loola jox xale yi fiwa mayonnaise bi boo jëlee korne boobu jox ko étudiant yi dañuy dagg rek loxoti dañuy dagg rek loxoti yii ñooy lekk étudiant waaye jël ay sombi ay yaramu bis étudiants yi sax mën nañu Ebola ndax ginaar lu lu ne njugub lu ne jox la ko lu ne jox leen nu boo ne góor gi dañoo xiif yàq ngeen depuis deux mille quatre euh, euh, euh, douze lekku leen wanu leen kon am naa Macky Sall li mu war a def mooy corne boobu yi mu am réew mi xiif nañu kon góor nga moo bàyyi